suivre ah tey rek ngi fii si école de lutte Balla Gaye euh, ñu seet si ki nga xamante ne moom mooy caatu Daouda Fall muy def point de presse gannaaw ba gin bu yoof defee li nga xamante ne moom mooy open presse ñu a bëre le 21 janvier ci diggante PABC moom moo tëgg lool muy prince mu doon lekk samedi incha allah tey nag euh, ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy ci làmb bu mu jëm dañ koy bàyyi nag mu nuyoo après ñu dugg ci question yi maa ngi leen nuyu Thiatou. waaw maa lay fay. di nuyu ñu fi teew ñëpp muy ñuy téye micro ak ñuy téye caméra bi yëpp di nuyu sama waa équipe bu baax a baax di ko teg suñu loxo coach suñ lépp muy Lamine Faye di nuyuwaale sama coach box muy moor sama grand ay ñoom Aziz Fisa Balla ñoom Youssou Ndour Gakou de ñaas ñaas suñ papa mbës di nuyu waa Guédiawaye yëpp ah di waa Waalo bu baax a baax a baax am seen fay di nuyu waa Fouta waa Guinée di nuyu waa Casamance waa Gambie maa leen nuyu bu baax a baax a baax. cat Daouda Fall ngeen bu Yoff nga jëm ci combat boo xamante ni 2023 bi mooy sa première sortie nga fas yéene jàmmaarloo ngeen bu Yoff sa combat ak ngeen bu Yoff choix yaa war bëri ak moom ndax gis nañu dafee duggoon duggaat fi. waaw laa nga xamante ni jël nañ ko gënal nañu gënaluñu parce que bu ñu demee bay moom ñàkk adversaire moo ñu booleeg moom wax dëgg yàlla mais teguñu woon suñu bët sax si moom mais tamit làmb daf ñoo boole. parce que mi ngi si yoonam maa ngi sama yoon ba ñu croisé kon yoon la ñu bëri man ak moom. Mhm. ñàkk adversaire c'est-à-dire da jàpp ni yow yaa raw ngir bu yow. non pas man maa raw mais bëggoon nañ ñu gënal am bëggoon nañ ñu gën loolu quoi franchement. waaw dox nañ suñu combat ak ay plus de douze mbër mais dañoo bañ mais amuñu choix moo tax ñu bëri moom. Mhm, di ñaan yàlla may nañ suñu ndam. Mhm. ñu gis ni dafa duggoon fii bëri ki nga xamante ne moom mooy euh, fils de Balla. Fils de Balla la après mu ñëwaat est ce que loolu noonu yaa ngi ciy bàyyi xel. waaw di béyee sama sama ay ga sama ay grand sax laa ak maam Modé ak waa équipe bu jàkk confection bi yëpp waaw ñëw na bëreeg Fils de Balla génn na ni Fils daa bàyyi mu sedd mais daa ñëw ba arrêté jàll mbaay rongal lokkal ma fa caab <laughs> ñëw rek lonk rek daan ko incha allah. yaakaar nga ni <laughs> préparé nañ combat bu gaaw préparé combat bu yéex waaw lépp moom lépp lu mu andi rek dina fekk lu gën a pire loolu. Mhm. xam nga gin bu yow. xam naa ko kay xam naa ko. xam naa ko ah, xamul làmb quoi. waaw wax dëgg yàlla ma bu dul moom xamulu ma ko dara. Mhm. loo wax si moom leneen lu dul làmb wax mu dëgg. Mhm. lan mooy ah, <laughs> xaw ma point fort am de façon daal maa ngi si entraînement yi préparé naa lépp te incha allah yàlla ñu ak yow yi nga bëreel du benn loolu loolu nga ciy tudd. ñan la bëreel ak man ñoo bëreel ah, ana ñu bëreel ay ñoom bulldozer et tout ñu ne ma ne. tonnerre deux ñu de tonnerre deux la fi daan. ñu fi lim tonnerre rek la ci daan de. Hmm. kese kese kese. tonnerre deux kese. Ah, ñu fi lim de moom la fi daan. bëreewut ak bulldozer. bulldozer ko daan d'accord. Hmm. Mhm. est-ce que jàpp yi mu gën a bëree ñoom ñoo gën a puissant. man ñooy bëreel ñëpp dañ naan risque la te yàlla daf ñuy suturaal di ñaan yàlla suturaal ñu ci làmb ji. ayca Maguette. caa kii caat nga jëm si bis bu doy waar bis boo xam te ni yaakaar naa ne géejewaay dañ ko soxla ndax géejewaay gëj naa am ndam. looy wax ci bis bi nga jëm. dégg ma. ma ne bis bi ngay jëm géejewaay dañ ko soxla. waaw ndax géejewaay ndam gëj na fi. victoire maanaam yëkkati loxo géejewaay gëj na fi. non lan ngay wax ci bis bi nga jëm. <laughs> ne la fi géejee. ah ci Balla Gaye 2 ba léegi de géejewaay mooy loolu. waaw da nga naan Balla Gaye daan na. waaw. di ko ñaanal yàlla bu baax a baax moom suñ suñ grand la suñ lépp la di ko ñaanal bu baax a baax a baax xam nga mu jugaat nekkaat ci affaire yi xam nga làmb mi ci kanamam tolloogul fu muy bàyyi bëre di ñaanal mbëri mag yi nekk biir Guédiawaye yëpp yaa leen yàlla defal teraanga xam nga bàyyi leen fi ñu continuer seen carrière waaw avec ko ab beauté te di ñaan bu baax a baax baax a yàlla may ma ndam di tàllal sama loxo waa Guédiawaye yëpp ah pour yàlla may ma ndam ñu ñaanal bu baax a baax yàlla ma yàlla may ndam ci combat yàlla ñu yàlla may ndam ci combat yàlla yàlla may ndam ci combat bi. yaa ngi sóoraale xeex. entraîné naa bëre kese na xeex kese na bëre xeex na xeex ak bëre waaw. xalaat dóor mu daanu am ci combat bi. lu ne xaj na si. entraîné nañ lépp waaw. caat keroog dañoo dem yoof gin yóbbantuñ ci yow. nañu boo demee ngeen laajal ma ko ba xam pare na pour xeex ak ñu doog a bëri yeneen 10 minutes est-ce na pour xeex ak Gris Yoff 10 woon loolu. laaj naa ko daal mu ne boo demee laajal ma parce que ba nga demee da nga ni man maa ko wax dañuy pare naa lépp de ah moom lu mu andi rek dina lu ko pur. Mhm. pare nga pour xeex ak moom 10 minutes. moom 10 lay wax man pare naa pour xeex 30 minutes. waaw ah. am naa modèle bu ne maa ngi fi sa bala maa ngi gàkku 2 maa ngi Youssou Ndour su ma ragalee dañ ma war a rey maa ngi bala 2 Balla la ne amul lu may ragal. doo mbër laa de rakku mbër laa mosuma ko bàkkoo nag su ma demee bay ragal ma war teg sama ngëm waaw. mais dayoo xam na ko. bu baax a baax a baax moo tax sax suñu fës suñu génn jafe waaw di si jégaluwaat yooyu ñëpp ah nekkul lu mu fuy nekkul dara mais làmb ne ak lu mu laaj dama am kilifa dafa am ma santoon ma ne ci amaana tey la ko yàlla dogaloon yooyu ñëpp maa ngi tub bu baax a baax di jégalu. Uh-huh. caat bu ñu ñëwee si li nga xamante ne moom mooy sa combat ak ñu gis ne da nga ci ki xam te ne mooy Youssou ñu waxoon ni sa combat ak Youssou dafa diis tey ngay bëre gin bi yof polémique yi euh, bien vrai que mooy jiir su làmb mais ci cadre bu bëre le fait que ñu jox la ah. favori ci cadre bu bëre <laughs> kan moo ko joxe su jiwul man bëgguma favori de man outsider toujours loolu laa bëgg waaw mm-hmm. ah, tokaar quoi uh-huh, parce que ñun ñooy uti ah, à chaque fois war waruñu sóoraale bu ñu sóoraale du baax si ñun te ñun waruñu naagu benn yoon luy topp suñ ginnaaw bëri na lool te du war liggéey ba fii di koy yàq xam parce que ñi ñuy jàppale bëri na de ku ci mel ni Thier Thierno Loum depuis États-Unis Pathé Cissé Aliou Lo borom Sontrio maa ngi koy bëgg bu baax a baax Waly Baye Fall Jamil borom Nourou la maa ngi koy siyaar bu baax a baax suñ papa suñ lépp muy père Abdoulah teg na ma coono yu métti saal kon du yoon mooy ñëw fii di ko yàq. ok dinañ ñëw ci sant mhm. euh, gis ne à fois sa adversaire da nga ne yow adversaire du la diriger. jin bu yoof ñu gis ko ni euh, mi ngi ci keppaaru caatu yoof caatu yoof nag koo gis fa macha allah dëgg bëre day xeex mm-hmm. ci keppaaru mujja mujja tamit pareillement est-ce que tey lan lañ mën a xaar si caat ci combat bi man am naa baalagay bu ma waxal benn mbir ragaluma kenn li ma wax fii rek laay delloowaat pare naa bëre kese pare xeex kese pare bëre xeex pare xeex ak bëre <laughs> moom lu mu andi rek dina fekk lu ko pire ah déggoo ma ku pare ku pare bëri kase kay bare na lépp. cat Daouda Fall ñu nañ day maye de. ndax gis yaa ngi sóoraale tànk yi maye bi ngay maye ci tànk yi. sama yaram daa amoon lu bëre lu mu mën a maye léegi amatul lu mu mën a maye. lépp jeex na. te bu ñëwee sax amatul lu may maye sama yaram. bu ñëwee xeex. déggoo ma xanaa am naa modèle bépp fii. mais Thiat xam nga lan ñun am naa am naa modèle bi ñun dañ cee sonn ah Makar ñu. dëgg la modèle bu nekk modèle yëpp am naa ah. wax. mais tey est-ce que tey bu ñëwee ndax gis nañu ngeen bu yof neen li nga yaakaar nag amul de. neen li nga yaakaar amul de. wala moom lu mu yaakaar. ah nee na yow daal li nga yaakaar amul. moom moo am lu muy maan ci man mais man am lu may maan ci moom. mais ngeen bu yof doo gént ngeen bu yof yi. non du ma ko gént moom mooy maan moom mooy tëdd xelam di ne ci man mm. man bu ma jëlee avance am laa pare ci moom maa ngi liggéey. te entraîné moom pour moom franchement dëgg yàlla dafa yaakaar yow da nga yaakaar ni yow combat dafa yomb moom mi ngi naa ko xamal ñaare waxoon naa ko signature bu jàppee ni moo ëpp doole mi ngi nax boppam. bu jàppee ni moo gën a daj coono aussi mi ngi nax boppam. Hmm. yaa ñi may sëgal comme ci sëgal doom am benn du for. mënul hmm. for sax billaahi hmm. ñi may ñi may sëgal ñoo doole fuuf. da ko jàppal temps sañoo sañoo ko jàppal temps non sañ daal kii daal sañu jàppal gën yëpp temps en tout cas daal da ko jàppal nii laa koy wax rek deux minutes deux minutes waaw nii rek deux minutes nii deux heures de temps te man ah deux heures de temps waaw deux heures de temps nii daal point deux heures de temps da ngay bëri moom deux heures de temps dama ciy def code nii rek deux secondes deux secondes nii daal point mais cat moom kan la daan ragal vingt-deux minutes tay tay tay dana gib tay tay da nga sa ñaari ci diggante bi loo wax ju loolu man daa am daa am sama sama samay supporter lu ñu ma proposé te man loolu arrangé ma ñoom dañoo bëgg ma cons laamu ci parce que ñoom neen mosuñu cons laamu ñoom neen naa leen consal laamu ci mais gin day cons waaw ah, ci moom lay dépendre ci moom lay dépendre gin ci yow lay dépendre góor du ragal jëflante kii su ma diriger laamu ji duñ ko cons mais boo amoon loo koy yóbbante mu ngi lay xool loo koy wax jàpp mooy li ma ko wax sàng rek bu jàppee ni moo ëpp doole mi ngi nax boppam hmm. bu jàppee ni moo ëpp bëre mi ngi nax boppam na bàyyi di toog seen kër googu ñu wër ko di ko xel ataaya man booy maa ko mën. gindi liggéey nga naan gindee lu mu liggéey dool parce que man ñaanu ma yàlla di daan mbër ñu naan entraîné wul wax dëgg yàlla man moom dama bëgg su may daan ma daan mbër bu pare. mbër bu coriace. état ban. état gin. gin ah. non franchement xool moo état am de. waaw ah, man parce que man li ma seetaan ba muy wax la quoi xooluma feccam xooluma daraam wax dëgg yàlla. mais non loolu moom yëfam la. <laughs> baram waaw waaw waaw mbay bi moom yëfam la kay faa mu sóoraale ko. baram mbay. bokk na bokk na. <laughs> ñi daan bëreel ak gën bi yof ban bu ne da ngay teg pas parce que bu fekkee damay xool ci ñi ma doon bëreel rek kon damay juum quoi parce que mu ñu mujjee bëreel moo gën dis fuuf bu ma xool foofu damay xool tout le temps que ni lamb ji may bëre moo gën a metti lamb ji ma doon bëre mm. ah, te loolu laa def sama bopp quoi ñu gis état bi cat daan indi ak état bi am na différence cat gars ñi naan protéine la wala ay traitement bari lan la yaa waaw mooy li ma la wax rek préparé wu pour gin bu yof kese damay préparé pour saison bi ak ñu ñu war a affronter ñi nga xamante ne laaj na maa di doole ju bëri yaa loolu am beneen baax na tey ñu gis ah, benn mobilisation boo xamante ni par rapport ak sa yeneen i yi gis nañ ni am na ay ASC yu la wër tamit ñu gis ne dañoo bokk ci combat bi gin bi yoof wala da ngay natt sa bopp wala làmb ji léegi ci côté mobilisation bi ndax gis nañ ni ko mobiliser wul doon combat ci côté boobu moo tax wala lan la lu xew gis nañ beneen mobilisation mooy li ma la rek liggéey boobu pour gin bi yoof wax dëgg yàlla waaw mooy profité di nuyu waa ASC yëpp di leen woo tamit ci làmb bu baax a baax ku su mel ne waa ASC Manko ASC Gueule Tapée 2 wa jàppoo waa fiñu xam nga waa sanc bi waa daaru ñëpp maa leen di woo ma fiyaa aljana bi bu daaru bi yëpp sama seexu yàlla yi nag son nga sonn nañ ci làmb ji trop nelawatun yendalawatun Ousseynou ak Assane xam nga Tafa Diané Moussa Kalaamu sama pap suma lépp dev di ñaanal Daouda Fall numéro de yàlla may ko ndam ci combat bi mu yaa mhm. euh, promoteur bi nekk xale prince di ko ñaanal yàlla mu ak jàmm salaam Euh, lan ban message nga koy joxe ak ñi nga xam te ne ñoom ñoo lay seetaan à travers promoteur bi nga xam te a tawat. non di euh, ñu bàyyi di gaaw a wax Sénégal nañ gaa nañ bàyyi di gaaw wax parce que man promoteurs yi ma contacté bëri nañ lool ñu bëri ñu ngi jàppoon ni laa mujj di am man dem naa ba ñi may jàppale ñëpp dañ téye woon seen loxo parce que ay kilifa ñoo leen di woon yeneen laa mujj am maanaam war nañ bàyyi dégg teel rek ni damm na. prince mi ngi ci jàmm nañ ko ñaanal mu gën a xama gën a taw féexe léppam yokk ci barke Seydina Mohamed sànq rek woo na ma téléphone ku baax la man mosuma wan xol xol bi nga xam te ne xama leneen la lu baax la dund ak man dama ko koy seedeel barke Seydina Mohamed Sénégal leen rek laa leen ñaan nañ bàyyi di gaaw wax xam nga prince macha allah mi ngi ci jàmmam nit ki bu mu def dara rek ñu bëgg juge ci loolu noonu amaana tamit man mën naa wax wax bi nga xam ne ànduma sama sago buñ xool ma wax dara ànduma ak sama sago rek ñu bëgg ma jugé si loolu noonu nañ xalaat démul nag ba ma ànd ak sama sago nu ma doon waxee xam nga loolu rek laa leen di ñaan. dinañ wax ñu waaj bu baax a baax a baax lu ñu waaj doyul xam nga lu ñu waaj doyul di woo Kandji xam nga borom Touba Daaru dox ma di ko woo bu baax a baax si laam di ko wax mu jàpp ci waaw moom moom moo macha allah ñi muy jàppale xam nga mooy loolu noonu Père Diaw maa ngi koy woo bu baax a baax suñ papa la suñ lépp seex saw tous les temps suñ papa maama Fane maa ngi koy woo ci làmb ji suñu papa Lamine Faye maa ngay waat bu baax a baax Lamine Faye xam nga sama papa suma lépp lees xam nga maa ngay woo borom mooy interview si tamit maa ngay woo sama papa Samba Ndour maa ngay woo bu baax a baax a baax Omar Pall Wuri xam nga Ndiaga Balla Gaye mi ngi sonn ci làmb ji di ko tàllal loxo bu baax a baax di wax sama fans club ñu gën a mobiliser sama pro yëpp maa leen di woo papa Paris Cissé jëndoon na ma bolog yu bëri macha allah li ma jënd ci bolog nit mosuma ko jënd ci àdduna maa ngi koy sant bu baax a baax amu ma fayam Paris Cissé Paris Cissé Faare Cissé wax naa la ko ñetti yoon am na lu ma la waxoon te dinaa ko defal incha allah maa yow loo lañ signé Aliou borom Sontrio maa ngi koy tàllal loxo bu baax a baax waa Ndar yëpp maa leen di woo ci laamu ji waa Cekkeen xam nga waa Waala waa Kër Momar Sarr waa Ndimb Ndimbu Pël Góolam Caareen Yiba Boqal ñëpp maa leen di woo ci laamu ji waa Poxataan waa Cekkeen xam nga di woo waa Fuuta yëpp waa Liw waa Pare waa Seedo set bi dëkk Wolof yëpp maa leen cawet maa leen di woo ci laamu ji xam maa leen woo bu baax a baax a baax a baax di laamu ji leen ñu waalo képp kuy téye kurus képp kuy téye kurus képp kuy téye kurus maa lay talal sama loxo yi di la wax nga ñaanama yàlla may ma ndam ci kaw gin bu yor jël bu set wecc waawul benn werante. huit bolok yi day dolli wala da ngay day <laughs> dolli day dolli. Ah, waaw day dolli incha allah xam nga mm-hmm. lu ñu yàlla may rek ci xaalis fas yéene nañ ko def ci làmb ji waaw lu ñu am doyul ñun moom wax dëgg yàlla xam nga làmb moo tax jug te dañoo bàyyi lépp nekk xam nga gars yi bàyyiwuñu benn yoon bàyyiwuñu benn yoon. Malick Gakou maa ngi koy woo ci laamu ji di ko wax mu jàppale doomam rakam maa ngi koy wax mu jàppale bu baax a baax a baax la jëpp suñu papa maa lay wax nga jàppale ma ci laamu ji si bu baax a baax a baax a baax a baax loolu nag dama koy teg ci loxo Fils de Balla ah la jëpp la jëpp teg naa ko ci loxo Fils de Balla Momo Ndiaye ah Momo Ndiaye maa ngi koy tàllal loxo bu baax a baax a baax Alioune Sall aussi tamit maa ngi koy tàllal loxo di jox ñëpp rendez-vous ah, samedi bii gannaaw suba incha allah fi ma wax amatu fi moom nag am na sens comme nga dem ngeen jox micro mu wax ba pare mais sinon moom du wax comme nga na ba pare léegi suba gannaaw suba vingt et une wala vingt heures dañuy al micro yi rek ñu ñu wax loolu rek la abara mu jeex <laughs> ok merci